man maay 15000 problème. dégg nga. 15000 problème. 15000 problème. waa Fils de Ngoye TV. dëgg la. Moussa mooy sama papa. Moussa mooy sa papa. Moussa borom Ngoye TV waaw. waaw léegi 15000 problème tur boobu lan moo ko waral. ah. da ngaa bëri problème bi. waaw. Ah. lam ji ma aw ma si mbokk. borom daaru. man bu ma xasee bu tàkk ngem. du ma wax ak nit sax. ah da ngay bëre. damay bëre. ah mos nga bëre fii. ah baul baul ngay bëri waaw kon yow ma ba pat bi ma mujjé jël mboyen la mboyeen saaku ceeb waaw mais fi ñew na fi dem fi la nek quatre heures du matin après ñu joxé licence yi sama licence da wot ci suuf to gisunu ko oh après ñu tok fi ra boson ñewul fi la mujjé weer licence bi sank la ko gis ni kan nga ngay bëri man léger lañ may def léger lañ waaw ah. est-ce que est-ce que boy léger opinion la doole ndax lañ la bëri non mon nañ ma op doole mais boré mom mungi fi fii. la bu après nga laaj ci sama papa. sama papa. ngoy sama way la. xam mo bu baax. amat nañ bu baax. boy bu ma len japon mi ma tolo nak ñom bila wala kenn ci ñom du ma daan. 2000 problème man nañ 15000 problème man nañ ko xaar après. lolu 11 millions yooyu damay dee raw gadu lay def sax demay wañi poids. damay wàññi poids. wa ci sama ay morom xalé bu ndaw la sama ay morom ay ni barké borom daaru xejna jëm jé ki ni rek mais xam nga né ngoy TV kum doon papa xam nga né koku nak xalé la. onze mille problème bi noo ko waajee onze mille onze millions yi noo ko waajee. onze millions yi. pare naa si bu yàgg tey tey tey tey sax dama pare woon. mais xam nga mystique na wala entraînement wala lan. entraînement su dee entraînement maa ngi si su dee contact chaque jour maa ngi si mystique nag après la bore moom su dee bore bore rek di nga ma seetaan bu dee yàlla di nga ma dégg. mystique foo ko jox ban ban nga ko jox première deuxième troisième position ci lamb mystique. troisième position laa jox entraînement mooy première deuxième contact teel a tedd wallahi aw nekkuma si yooyu de. déedéet ma de. wër sama ñaawaay gi. waaw aw ma gël ñoo xam damay toog ak ñoom ñuy communiquer mais man nekkuma si yooyu. da nga fas a am salon. bu ma jógee cinq heures du matin xëy onze heures midi ma wàcc dem tête na pleku ba ma dem entraînement yara billaay walaay Anak ngom poti wa poti rek rek sama magla mu yang koy gis. amna defaral boy tay nak final bi la soxla de ma ding ma di nga ñëw fi nak ne 15 bi. inshallah de da koy jël wa jamé wa jamé Assalamualaikum warahmatullahi asalaamaaleykum wa Ngoy yéen wa aduna kep ko xamanteni abonné go rek dawal ci Ngoy TV nga dem abonné. nga mën di seetaan lu ñu mën di dugal nga dem seetaan ko IGTV c'est meilleur Ngoye TV c'est meilleur ñu leen di ziar di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku si